gannaaw génnuk àdduna sëriñ Atou Diagne mi jiite woon Hizbut Tarqiyyah ñu jébbal ko boromam tey jii nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2021 moom sëriñ Atou Diagne mi nga xam ne rek moo sampoon kuréel ji nga xam ne moom moo di Hizbut Tarqiyyah boobaak léegi ba ñu ko taxawalee yàgg lool atum 1975 la woon mu jiite ko ba atum 2021 lu ëpp ñeen fukki at ak liggéey gu am solo goo xam ne jot na ko amal moom sëriñ Atou Diagne ngir fësal njàngalem sëriñ Touba waaye itam gën koo fësal ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru léegi nag jamono ji mu tasaaroo lool Sénégal moom atu Atou Diagne may gannaaw génn ak àddunaam jamono ji nag ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Youssou Diop mooy ki ko wuutu fas yéene wéyal liggéey bi nga xam ne Serigne Atou Diagne boobaak léegi sumboon na ko ci yoon wi Hizbut Tarqiyyah